lay tee maa jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna soxna jaara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 xanaa di leen gërëm di leen sant wax màggal gi moom wax dëgg yàlla neex na yàlla na yàlla taaf ci barkeem daal moom la ñuy ñaan rek. yaa ngi bàyyi fan. maa ngi bàyyi ko Dakar. Dakar mooy sa at mu njëkk nga màggal. ah at mu jot nga maa ngi ñëw moom. te fas yéene at mu jot ma fi yàlla bàyyee. Ah. du ma ko tardé bu sooba yàlla. yàgg fekk yaa ngi bàyyi ko. yàlla yéen yàlla na ngeen fi yàgg ci barke sëñ Fallou. waaw yaay booy na nga def maa ngi lay siyaar bu baax. ah ñi sant yàlla rek di dellu ci yonent bi julli ci yonent bi na Cheikh Ahmad Bamba jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna su tedd si jaaraama ndax moo waral mbaboor mi. ku ñu tey ci sëñ Bamba rek na nga wax Cheikh Ibrahima Fall jaraw lakk ñuy dellu ci yàlla tey jéem a roy soxna si di muñalante di jéggalante te jéem a jaar ci ay tànkam rek mënuñu ko nag waaye ñu jéem rek. yaa ngi bàyyeekoo fan. maa ngi bàyyeekoo Mbour. Mbour waaw. alhamdulilah at mii mooy nga njëkk a màggal si wala. ii damay ñëw at mu jot dama daan ñëw sax di siyaare si sax te dul poroxaan. soxna yi de moom euh, yan kàddu nga leen di sànni seen ak soxna si. waaw ñu góorgóorlu bu baax tey sellal te bu ñu duggee ah, wane ak teggin te bu ñu duggee ñu wane fa yar ak teggin te jéem a roy ci soxna si rek. ñu dellu ci yàlla bu baax jërëjëf ñoo lay sant bu baax na nga def Adja yaa ci jàmm. maa ngi fi tur naka la. soxna Fatou maa ci jàmm. sa sant bi doy na waar de lan mooy sa taxawaay ci bi. Ah, waaw di ñaan at mii nga njëkk a ñëw màggal si wala. non chaque année ma ñëw bi mu ñaari yoon wax. moom ñëw rek raay miir beeg yooyu dem moom loolu rek mooy soxna si wala am na leneen lu des. am lu des. loolu lan la. xanaa ñaan rek yàlla def nañu ay maam jaara. nañu ay ay jukkoy jaara may ñu njaboot. taw Tawfekh Production na nga def soxna si. oui fii. soxna noo tudd. soxna Ati Thiam sëñ Mor la fii nag ay caameer rek ñoo fi nekk te man Sarr laa sant affaire bi am na problème de. Thiam daa neex de. Ah. yaa ngi doog a màgg si Porokhane wala. non maa ngi. yan kàddu ngay sànni. ah di sant rek baax soxna Mame Diarra. sant baax di gërëm. soxna yi ñoo ngi noonu seen pësteef ak seen taxawaay ci màggal gi it kenn demul ñu des rang yi gudd naaj wi tàng na waaye kenn yuxuwut muy góor ñi muy jigéen ñi ñëpp ñu ngi def ay taxawaay ngir di wane seen cofeel ci soxna Jaaratullaahi Mariama Bousso wa najjini wa jamii al muslimina maan wa najji walidati amina yallaahu waxfir Sarsara ginnaaw Daaru Musti. gannaaw Daaru Musti. waaw Sarsara. sa ah, Sarsara moom sëñ Koso. moom sëñ Koso asuloo ci sëñ Kara. ñoo leen siyaare baax baax. yàlla na yàlla nungu siyaare te boole ñu ko. Ah, looy yan kàddu ngay sànni ci màggal gi. a ah, xanaa ñaan yàlla fekk koy at yu bëree bëri rek te ñu yàgg fi. ah sëñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi. mbokkum soxna Fatou Issa de moom moom waa kër soxna Fatou Issa suñu sëriñ ba tamit sëñ karaako so yàlla yàggal ko ñun yàggal ñu fi ñun ñëpp ak sama sëriñ bi ma bàyyi ba ma màggal seeg sama njaboot ñoo ngi ñaan daal ñu fi jëlee yàlla nañ ko bokk mbokki taalibe yëpp ku ñëw ak ku ñëwul te yàlla delloo si ñu ñun bu déwee ne ñun ñëpp ñu ànd ñëw fekk ko te tal ko ak yow mii nag ak rajo bi ngay liggéey lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmalul boppam soxna jaara